tënk fa ñuy jël fanweeri junne ak juróom ci ay sandarma ci Sénégal enquête yéen a kaay dëggal xibaar bi réew mi yéen a kaay la njiit réew mi kay fa xar tànk tubéyam kaaraange réew mi wàllu terrorisme bi ak yeneen yi ni mel fa bëgg a xeex ak moom Le Soleil yéen a kaay na ko waaye yemu fa de moom njiit réew Macky Sall fa faa sargal jaajëfal ndokkel général Moussa Fall laas yéen a na ko hee faa lay ñaan ngir yàlla may ma ma wax sénégalais yi li njiit réew Macky Sall wax s Moussa Fall démbu yaw seetal gaay na ko xaaral ma mottali ko fa ko wax na ko fa ngaa xam sa liggéey te yaa koy def yow général Moussa Fall soldaar bu baax nga ku jàmbaare nga ku am kóllëre nga professionnel nga ci li ngay def enquête yi nag juróom-ñeenti légion ñoo fi am ak juróom benn section de recherche ak ñaar fukk ak juróomi compagnie ak téeméer ak juróom ci ay brigade leer la neen lu leer ba yegg ca naññ ja mooy na Ayib Daffé mandataire Ousmane Sonko ba démb fa demaat ca DGE ngir jëli fii su parrainage Ousmane Sonko ya waaye ba mu xeggee dëgg la naam dugg na fee dalal nañ ko waaye nam duggee woon loxoy neen ya noonu la génnee joxuñ ko daara ba daree bolo jeex fañ ko wax na ko ñoo lànk ñoo bañ suñu waxe démb mooy suñu waxu tey dara lañ la joxut mu ne leen waa léegi yéen fu ngeen ko teg ñu ne ko suñ bataaxal biñ bindi démb Sonko nekku ci liste électorale yi waa na leen ah ah Ousmane Sonko ñun dugalaat nañ turam ci liste électorale yi mi ngi ci fichier bi kon wax leen la neen tey mooy yéen a kaay ñu ko xamal ayib dafe ci libération ba mu génnee ca DGE la mu njëkk a wax ca kanam la na la joxal kii fiche yi nga bañ na doo ko def di layaka wiiri wiiri lu ne nga def mais lii fa ñaaw du dëgg du yoon si du quotidien na neexut a dégg waaye fi nii nag kal fa teey ci waa DGE na ñoom daal fa mel ne daal fa far ndax ab administration bu ñàkk a far def liggéeyam fa ñoo léegi ana lan moo tax mënu jox kii fiche yi ndax attekat ba wax na leen ko Sénat wax na leen ko waaye fa bañ rek ba tëdd ca naaj wa nag yor yor a yéen tey fi mu toll nii ay mbiram fa doy waar ayib dafe na leen wax leen wax ji ñun xam nga ñan lañ am ak affaire ay banditisme ci wàllu administration vox populi ne ko bii mooy ñetteel yoon gars fañ laa bañ a jox fiche parrainage yi mu na leen waaye ñun fa ñuy continuer di xeex dem ci wàllu yoon xeex ci wàllu politique ndax lii jaay doole la maa tey doo fi bokkee ci ay wote mu njaay siisee ci Sud Quotidien ne lii kay buñ ci waxut fa mu mujj du baax de info yéene kaay ñoom yoon may na leen am nañu pouvoir sañ-sañ jox Ousmane Sonko fiche parrainage am yi ndax code électoral bi moo wax ne Sénat bu gisee koo xam ne fa ngay def lu nekkut yoon ci wàllu wote am na sañ-sañ sa place def ko jubbanti ko léegi nag avocat Sonko yi loolu lañ sàkku ci waa Sénat yi ñu def ko la mu def nag moom agence judiciaire de l'État mooy kalaame ji te cour suprême ngir ñu neenal wala attewaat dogalu atte saba si fay sa Ziguinchor les si ko yéen kaay fa ñoo xamal ne avocat Ousmane Sonko ñoom it fa ñoo yóbbu déposé ca cour suprême seen mémoire wu défense cour suprême fa leen a nar oo ñoom ñaari wàll yëpp ci ab audience ngir xàtte leen keneen ku ñu nar a jàpp nañ ko mooy Mamadou Lamine Seck bokk ci ndaw Ousmane Sonko yi dëkk Tiwaawoon libération fa ne tax ñu jàpp ko mooy wax kàddu yi ñaaw jëmale ko ci njiitaram Macky Sall ci statut WhatsApp am ci la ko publier gaa jàpp ko <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Amadou Ba ma ngay ngoro waa PS njaboot ak Ousmane Tanor Dieng ja ak Léopold Sédar Senghor dafa demoon seeti leen Le Réveil yéen a kaay ñu ko xamal républicain yéen a kaay ne Amadou Ba kay tournée bi ba mu demee ca xombol maire ba ma géey fa dalal xelam ndax mbooloo mu bëri moom génne Le Point yéen a kaay ne Amadou Ba tamit wàllu parrainage ba xelam na dal ca diiwaanu Latmingué ndax maire ba Macoumba Diouf fa mbuqi El Hadji Malick Guèye yéen a kaay bi ne El Hadji Malick Guèye kay ak mouvement am ba suqali ga de xam nga mouvement suqali siin Saloum ñoom Idriss Seck la ñu léegi nag fa am ay responsable yuy bàyyeekoo ca maa liggéey dem di fekk ji benn bokk yaakaar Makumba Diouf la ko waral nag mooy bilan la Makumba liggéey ca wàllu courant ñetti dëkk ci lu toll ci cent quatre-vingt-dix millions jaare ko ca programme ba ñuy wax Pamacel bu Sénélec ba tey l'évidence yéen kaay moo ñu xamal na maître El Hadji Malick Diouf président ànd liggéey commune bu Ndiaafat ak El Hadji Malick mu mag bëccëgu set setal ca la mu wax ay militant am moom maître El Hadji Malick Diouf mooy parrainage bi ñoom parrainé wuñu kenn tànn na militants yi mobilisé wu xaar ba ñu xam ana ñan ñooy candidat su ko defee ñu xool kan la ñuy àndal ndax seen mouvement ba malk naam kenn mënta gañe commune bu Njaafat wala département bu Kaolack te waxoo ak ñoom ndax mbooloo mu bëri maître El Hadji Malick Diouf avocat fëhal wax mbooleem jafe-jafe ya seen diiwaan ba am rawatina coof yor ci poste de santé yoon courant ak yeneen i jafe-jafe indépendant yéene kaay moom fa ñoo xamal na Khalifa Sall moom it ma nga xamal tournée ca mbir kilaan fa ñaaw lu ñàkk jumtuwaay ya xamul ca seen diiwaan ba source ay yéene kaay moom fa xamal na ma jambal jaañ fañ koo génnee ca terrain suuf 44 19 ca Ngor Almadi turbine yéen a kaay ne man fay laaj te tooxi doona bu mag bi fi xamoon ci sàcc ay milliards ci xaalisu corona bi léegi yéen xaalis boobu milliards yooyu fañ ko nar a fàttee nii rek ah ah loolu fa yomb de duñ ko seetaan xalalu askan wi ñu dajale corona bi ay milliards ñu ne ay kilifa sàcc nañ ko ba léegi waxaatuñ ci dara la mu ñu wax moom bés bi yéen a kaay mooy ne parrainage bii fa xam ñu ciy business xaalis bu weex tàll lañ ciy xam ndax ñoo xam ne fa ñu jaay ay carte d'identité maanaam fa ñu dajale ay fiche boo ñëwee ñu ko <laughs> yaaw seetal waay daal fa wax ne man 500 fiche parrainage moom laa jaayee 1 million ndax ki ma ko jaay fa soxla parrainage te man faa xam njaboot war leen a dundal keneen ku war a dundal doomam ba pare fa ko mujj rey benn waay la ginnaaw bu mu reyee doom ji ma ngay nettali nam ko reyee ca l'observateur yaaw seetal fa wax na sama doom ji fukki weer ak juróom-ñett la xam waaye faa ko jël téye ko mu jooy rek faa ko ngëb bécc ko mbuqi ko dóor ko ci miir bi ba bopp bi toj faa dóor ba mu sedd guy mu mel ni rek faa xàndut ak sama sogo man faa xam xam ne fa may xiir ci rey nit ak def lu bon aay ma